salaamaaleykum euh, man la Kumba Arène Fall président CRA de bu Diourbel maa ngi ziare eh, képp koo xamante ne rek yaa ngi seetaan wasaare lamb di jaajëfal samay mbokk samay am du jàmm mooy waa Diourbel yëpp maa ngi leen ñu di leen aussi arbitre nekk ci Sénégal yëpp di leen jaajëfal. waaw balaa maa démarrer ci bilan bi nag euh, dama am benn affaire boo xam ne dama ko bëggoon nga may ma ko rek. ndax euh, temps yi dañoo gën ci ay situation yu xaw a euh, muy suñu benn mag bu ñu naan Bounama Fall doonoon premier vice président chargé de la lutte avec FRAPP génn àdduna ak suñu grand frère Dame Sylla aussi moom it mu doonoon deuxième vice président chargé de la lutte sans FRAPP génn àdduna ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen fi yàlla bàyyi aussi yàlla dëgg leen leen ba mission bi tax ñu mun ko continuer bon ci Eh, yomb trop pour ñu pour ñu wax ko ndax eh, ku ne xam na ne eh, làmb ji Covid bi da koo da xaw a xaw da koo donc commencé woon nañ def ay manifestations euh, pour ci la région de Diourbel on avait fait huit sorties huit manifestation la ñu amoon en lutte simple ak euh, trois yoo xamante ne c'était en lutte avec frappe mooy loolu laal lañ amoon pour la au niveau de la région de Diourbel ba bi le président di jël. Euh, ay di jël arrêté boobu noonu euh, di arrêté manifestation yi nga xam ne moo am ci Sénégal donc euh, loolu daal lañ amoon situation globale bi nga xamante ne moom lañ am ci manifestation. waa léegi décision bi CNG jëloon aussi à effectivement décision bi parce que problème bi mun naa ne Diourbel la démarré ah. loolu aussi damay danga may may rek ma profité waale remercier waaye Sitor le président. parce que bi situation amee ñun arbitre région de Diourbel dañoo toog réunir bi ñu réunion eh, on s'est dit que ne ñun dootuñu arbitrer donc comme ñoom moom mooy sama supérieur balaa maa def dara il faut ma informer ko quand bi ma ko informer nag mu xamal ne ma xeex bi boo ci demee yow kese da nga ciy wét te li ngay kaas ni moom la Fatick di kaas moom la Kaolack di kaas moom la Thiès di kaas ainsi de suite ainsi de suite donc pourquoi pas ñu def ko benn ñu porter combat bi ñun ñëpp def ko def ko benn combat ku ci ne ci sa loxo. après mu ma doon wax pour ma xaar après nag ci lañ xaaree euh, defar suñuy dossier yëpp envoyé ko comme ñu def ko Kaolack def ko Fatick def ko Thiès def ko ci dañ ñoom ñoom ñu nekk devant la scène porte combat bi yàlla def euh, décision génn ñu rajee leen. ñun nag on s'est dit comme ñoom dañ leen rajee te ñoo ñoom ñun la ñuy xeexal donc mënuñu leen rajee ñun ñuy toog di officier biñ leen rajee ñun on a dit que ne ñun ñëpp dañuy geler suñu activité kon arbitre yi nekk région de Diourbel yëpp dañ leen rajo ñoom it def noonu Fatick def noonu Kaolack def noonu et à actuelle je crois que ne l' ensemble des arbitres yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal les arbitres yi nga xamante ne ñoom gëm nañ li ñu nekk donc dama jàpp ne ñoom ñëpp lañu ñu rajee suñu waaw comme d'habitude ah relation bi liggéey lañ seex vraiment euh, ñi ngi ci jéem ñoom ñi ngi jéem lañ mën ñu ñoo ngi jéem lañ mën mais y a un problème na dafa am ay problème yu am parce que y a un problème biñ naan lutte simple parce que souvent lutte simple dafa am benn règlement bi wax ne euh, les dix pour cent de la mise euh, représentent les droits organisationnels donc les dix pour cent loolu les dix pour cent yooyu noonu euh, les soixante pour cent sont alloués aux arbitres mais Diourbel y a un problème parce que Diourbel du jël les dix pour cent de la mise Diourbel dañuy laaj ay droits organisationnels les buñ ñu laajtee droits organisationnels ñu jàpp ne droits organisationnels yooyu ñu laaj les les l'ACRA am na ci soixante dix pour cent donc parce que dañ ne les les le droit les droits organisationnels les soixante dix pour cent des droits sont alloués aux arbitres donc ñoom bu ñu droit droit organisation les soixante dix pour cent droits alloués aux arbitres ñun loolu lañ jàpp. ci loolu nag moo indi woon coow lu bëri lii ay tiraillement entre lii la ñuy fay arbitre du ñu fay arbitre loolu indi na coow lu bëree bëree bëri beneen bi aussi tamit euh, revoir les honoraires parce que tey jii arbitre Ndiarème mi dañuy dem Diourbel tu officie tu as vingt mille francs le nombre de combats tu as vingt mille francs et loolu ñu jàpp ne dafa dafa tuuti par rapport ak ñun coono bi ñuy daj tu vas à Mbacké tu perçois vingt mille francs même les galas de lutte yi ngay génn ci àll bi ko def tu as à peu près vingt quatre mille cinq cent pour les pour pour quatre bi donc ñu gis ne loolu dafa tuuti par rapport ak ñun li daj donc on a jugé nécessaire que ne ñun dañu war a joxaat suñu àq joxaat ñu gëdd parce que arbitre yi kenn mënul làmb dem sans arbitre. te coono gu bëree bëri la ci arbitre di def mais daa mel ñun delloowuñu delloowuñu nu mu tudd rendu ñu laa mu ne donc ci loolu lañ taxaw ñun ñëpp euh, di ci xeex pour loolu am bon aussi tamit bon waxtaan nañ fi waxtaan boo xamante ne aussi parce que man je représente la je le président de la CRA de lutte de Diourbel mais à l'heure actuelle Bambey boo fa demee y a des arbitres arbitre Bambey yi je crois que ne dañoo war a affilier dañoo bokk ci ci ci CRA ci CRA de Diourbel donc ñoom. impérativement dañoo war a ñëw ànd ak CRA liggéey mais jusqu'à présent arbitre yi on j'ai fait li ma yëpp def naa ko dem naa fa émission waxtaan naa ñoom sensibiliser naa ne par rapport mais ba léegi nii loolu mënul am donc CRG war na ci am benn jéego bu mu parce que CRG am na fa démembrement war na am benn jéego bu mu taxaw ba nga xamante ñooñu bu ñuy autoriser ay arbitres ñu jël les yoo xamante ne sont reconnus par la CCA o moins ñoom ñu mun di officier loolu parce que loolu c'est yoo xamante ne da gis ni xamoo leen am peut-être mun na doon des arbitres formés mais comme mun na doon ay arbitres yoo xam ne du ñu leen formé vraiment ñooñu waratuñoo nekk sur le terrain di arbitrer un arbitre doit avoir une formation ñu sanctionné ko par par par un diplôme mu mun a mu mun a officier mais des arbitres yoo xamante ne vraiment am nekkuñu ci répertoire ru CCA nekkatu nekkuñu ci répertoire ru CRA CRA bi mais vraiment ñooñu mënu ma leen considérer comme des arbitres te loolu aussi waxtaan waxtaan nañ ko fii incha allah rabi euh, jël nañ ay engagement yoo xam ne dañ fa waaj jéem a waxtaan ak ñoom. waaw conclave bi man dama naan bo yàgg nañ ko def ñoom parce que Dakar moo ko daan def euh, Thiès bokk ci ren nag ñu ne léegi il est normal aussi que arbitre yëpp di ci participer bi ma ñëwee fii à peu mun naa ne y' a à peu six à sept régions yoo xam ne waa waa daje waa daje nañ fi. donc wax ma daal mais familiarisation bi am rek euh, retrouvaille bi am gisante ñaan ñi nga xam ne téléphone nga leen doon dégg loolu rek euh, mbégte la. et aussi jàngat nañ fi loo xamante lu bëree bëri parce que ku ci nekk wax nga jàngoro yi nga xamante ne moo nekk ci sa biir région muy Diourbel muy Thiès muy Fatick toujours day am ay problèmes yuy ñëw entre les arbitres ak le CRG. toujours day ñëw toujours day ñëw le problème des honoraires day ñëw mais aussi tamit euh, à l'heure actuelle ku ne xam ne làmb moom arbitre dañ leen dañoo a am assurance ça c'est le minimum même à Diourbel làmb ya fa nekk ak danger bi ci nekk assurance assurer les arbitres pour man loolu c'est une obligation dafa war a am donc am na yeneen aussi tamit yoo xam ne wax nañ ko fi euh, revoir les honoraires assurer les arbitres ak euh, nu mu au niveau de la formation aussi et pour gars yi dem di ñuy prétendre être des des nationaux ou internationaux ñooñu aussi tamit ñu jàpp leen faciliter leen ko ñu mun ko def parce que dafa am image bu président Moussa wone bi mu demee Algérie mu dem Algérie on a vu que trois personnes noires Sitor Malick ak beneen Nigérien ñi sax ñëpp sont waa ce des blancs donc ñun ñu ne mais lii pourquoi pas ñun CNG bi dimbalewul arbitre yi fi nekk ñu mun a am loolu. donc il est temps à ce que ñun aussi ñu tendre vers vers le vers l' a am ay grades yoo xam ne parce que Sénégal waroon na toll tey foo xam ne dañ naan am nañ lu mu toll quinze wala vingt grades international mais tey ji à l'heure actuelle vraiment buñ ne ay cinq six la am grade man pour man loolu des na CNG bi ñëw en place war nañu mun a jàppale ci loolu. waaw kàddu gu mujj gi nag di gërëm l' ensemble des arbitres yi nga xamante ne ñoo nekk Diourbel ak ñi nga xam ne ñoo nekk territoire Sénégal bi yëpp. Euh, di gërëm di di di gën a gërëmaat aussi liggéey bi ñu fi def Malick def ko ak Sitor ak euh, président Babacar di jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla yàlla na mbas mi jóge fi euh, ñëpp delluwaat seen activité ba làmb Sénégal mën a dox ca kanam jërëjëf.